waaye damay fàttali ne taxawaay bi Cheikh Ibra am te ñu war di ko waxtaane di leeral nit ñi philosophie maam Cheikh Ibrahima Fall te yoon wi nag am na lu ci ne lol wala am na ci ñoñ ndax arab day wax aglabiatu ka mooy la majeure partie gëm nañ Cheikh Ibra Fall waaye wóoluwunu ko waaye nag nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple cartographe bi mënuñ ci génne Cheikh Ibra Fall ci la bokk waaye nañuy wax nit ñi jëfinam ak doxinam ak waxinam ak doxalinam ak nim doxe ba agsi fii lii du neen yàlla lay faal njare waqi la ko Cheikh Ibra Fall njëkk a diggi juróom-ñaari maamam gane àdduna muy maam dem Demba njare yàlla moo dox ba njare waxte jóori téeram jublu penku di jàng muy taw muy jàng ba asamaan set toq laalu ko ñu yeewu dana njare mii de yàlla yàlla ngay faal ji foofu la tàmbale ca maam dem ma njare yàlla mooy mbabba buri njéeme njare yàlla bakkar wàqi ma njaay fatim saali asta amad roqee roqee faal sixi ba faal boo demee ca Abu Darda danga naan di ci cukli cukli njiglaan njiglaan sare sare njaajaan njaajaan njaay alburi Abu Darda muy Cheikh Ibra Fall waaye nan bàyyi <laughs> yaay ñag bi Cheikh Bamba ñage murit yi waa ju la ñag yàqu yaa moom yi yaay ñag bi Cheikh Bamba ñage murit yi waaye ju la ñàgg yàqu yaa moom ruu yi dama ne li Seex Ibra Faal def ci yoon wi li sëriñ bi def ci yoon wi defal ko sëriñ bi dama ne Seex Ibra Faal bu doon musicien nañ ko defay dafay droit d'auteur li fi leer lépp moom moo tax Cheikh Samba Diarra Mbaye ne law yam daxu shuara ul kulal kiraami maan ma wéy la man yaa ma saf yaaram bi naam faal daa wax ca bopp xasida ga ne Cheikh Ibra raw nag maasam te deefu ko dab bambaa ko seppi mu raw yaaram bi naam faal daal ne siwal mbàkk yi ne hum saadaatuna abadan koo xam ne du ñoom du yow yaaram bi naam faal nañ koy jàngale baatin waxtaane ko léeg-léeg dafay doy ndax man sëñ Moodu laay laaj na ma mag mu ma xam lu ma ñaar fukki at ci kër gi booba gone laa mu ne ma daa faatoo ma ne ko dégguma ko de ci suba sañu indi ko te ma ne ndax gëj nga koo gis ma ne ko booba maa ngay def quatrième seconde mu ne ma daa faatoom ma ne ko dégguma ko de ci suba sañu indi ko waaw kon baatin di ko waxtaanee léeg-léeg dafay doy waaye nañuy jàngale Cheikh Ibra Fall ci li mu li mu li mu tabax ak ni mu ko réussir wax nañ ne tuuti kon mu dem fekk sëñ bi ba lëm mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ca bés ba ñuy texe damay faral di wax ne Cheikh Ibra Fall sëñ Bamba am ndënd la waaye galam bi ko tëgg ba ñëpp dégg ko mooy Cheikh Ibra sëñ Saaliw sëñ tubaab bu doon ordonnance Cheikh Ibra Fall mooy notice bi notice notice bi ngay liir mu xamal la mode d'emploi bi moo tax li am kër sëñ Bamba yëpp mooma sëñ Maamun wax na ko ndànk ba loolu loolu Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi la ko Cheikh Ibra wax Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi moo xëy yor kayitu ñaar fukki dërëm ne tey damaa bëgg saa waa ji wax lu leer ma di ko dégg daa di xëy nuyu ko jege ko nii ma la jege da ko jàpp loxo daa ne bàmba ji ba muy door dañu woon du sori Cheikh gàcc ko loxo da ko ah, doom kàcc la nu de nana mën a tekk dafar waat koo jege daa di ne ñane woon du sori seeni taaw jébbulu nanu mu ne ko ah Cheikh Ndiaye daa maay doom wax nga dëgg de nana ma xool Cheikh muy soppiku di njool di gàtt di xees di ñuul ne na ba mu yàgg ma yëngatu daal di ne bamba yaa ko njëkke bamba yaa ko mujje mu ne a ah, doom bu ma kàccaloo de njëkkuma kër sëñ bamba waaye lu fa baax mën na njëkkuma kër sëñ bamba waaye lu fa baax mën na moo tax du du ñeen fukkeelu góor Cheikh Ibra tardewul noonu déedéet du ñeen fukkeelu góor Cheikh Ibra tardewul noonu ولحق المحضر الخديمية في أول الحركة المريدية وبايع الخديم تحت شجرة في مبكي كجور في مقال البر jërëjëf sëñ Babacar Mbow Abdou Rahman Cissé moo wax loolu walaxiqa al mahdara al xadimiya ne na moom teewee na wooteb sëriñ Bamba bi ca njëlbeenub yëngatub yoonu murit ba sëñ Tubaa keroog xëyee wax ne yàlla yebal na fi jibril biig mu fekk ma fii ma toog ne ma rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi bi darsi fa xat Cheikh Ibra ne Sëñ Bamba xëy na banaa jàngale am na ñu dem am nañu toog am nañu dem Sëñ Saaliw am nañu toog ndax am ñëw ëpp xam-xam leen indi woon ba ma ko waxee ba àggal la Cheikh Ibra Fall ñëw fukki fan ak juróom-ñaar la Cheikh Ibra Fall dox la jóge këram ñaar fukki fan yi mu agsi Mbàkke Kajoor cent 2023 136 ans la ci ren 136 ans la kon yoon am na siècle ak fanweeri at ak ak juróom-benn keroog ba Cheikh Ibra Fall jaayanteeg Sëñ Tuubaa ba tey 136 ans la yoon wi am ci Mbàkke Kajoor ba tey moo tax Abdourahmane Cissé ne wa laxiqa al mahdara al xadimiya fi awal al xaraka al muridiya wa baaya al xadimu taxta sajara fi Mbàkke Kajoor fi maqaalil barara fi ahad fi ashrina fi bafsasin fi ramadaani lama xakka sudaani wartaxalu an bakkatal kajoori israxalu an daarihi bannaahu waaw waaw moo tax lam fay taxawal yàlla na ko Cheikh Ibra doon lay dimbali ndax am na ndimbalal maam Cheikh Ibra yàlla na ko Cheikh Ibra gën a dimbali te gën koo yàggal te gën koo wéral te gën koo dëgëral loolu murit yëpp a ngi koy ñaanal maa ngi siyaare bu baax sa taalibe sama xarit seex Ngom doomu Moussa Ngom wasalaamaaleykum wa rahmatullah def nii waa da ngay def nii waa ñaan bu baax di am mbekke mu baax a baax ci bis bii di siyaare suñu kilifa gi ñuy toogal muy sëriñ Saliou Fall ibnu Sëriñ Mourou Moussa Fall di jéggulu kàddu yi ñu yëkkati nag ci wetam waaye di siyaare soxna maam Mariama Mbàkke bintu Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moom bi nga xam ne jotaay bi moo fi leeru sëriñ Touba. di ndokkeel bu baax soxna Soxna Xumba ci taxaw yi mu taxawu mu taxawe taxawu maam Seydou wu Njaay rek ak maam Soxna Jaara Buso waaye nag di siyaare sëriñ si Yusu Jóob bu Tarxiya ñoom ñi nga xam ne euh, bu Tarxiya day mën na noo wax ne fàggu sëriñ Tuubaa la rek fàggu sëriñ Tuubaa la leneen luñ ci wax leneen lu luñ ci wax lu dul fàggu sëriñ Tuubaa rek dañuy dañuy dañuy dañuy wàcc yoon wa waaye Hizbut Tarqiyyah moom fàggu sëriñ Tuubaa kon ñu ngi siyaare sëñ Yuusu Jóob mi ko jiite di ñaanal sëñ Aatu ma jiitu ak mboolem waa Hizbut Tarqiyyah yépp suñ kilifa gi ñu teewal nag ñu xam ne dañoo toog ci wetam ñu ngi koy siyaare bu baax ci turu sëñ Amdu Fall sëñ mutu Mbend mi nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibra wax nga ko léegi yaa tax ba soxna Mbenda Fall ak gën sirée ki Lalla Fall gën doomi soxna yii fi taal ngir diina ju réy ji ñuy doxe soxna Mbenda moomee moo jur sëñ Mut Fall Mbenda mu jur sëñ Amdi Fall kon diina ju ji muy doxe mooy dasee agsi waaye sëñ Amdi Fall Mudu Mbenda wàcc na ndax ku sa maam daan jiite ay tooli xare ay bal di ko dégg tey jii sëñ taxaa dénk la Tuubaa ngir nga sàmm war may Touba kon li sëñ am ni Fall Mourou Mbène bëgg dina am loolu moom ndax da def nii gaa gaa yi gis ma ma ma wax ko àdduna de dama ne defal nii dama bëgg wax ko ñu dégg ko ci sama turu kilifa gi ci wetam àdduna àdduna soxlawuñ ko ku bokk Cheikh Ibra Fall soxlawu àdduna ndax Cheikh dafa jaay boppam àdduna lim am ci àdduna da ko da ko jaay sunu borom waaye mu wax ne sëñ Moodu Ablaye mu wax na ne su soxla woon àdduna su soxla woon àdduna kon ab pëndam de kenn du ko séen mu ne Seex Ibra soxla woon àdduna pëndub Seex kenn du ko séen waaye la Seex Ibra Faal am muy àdduna muy xam-xam muy daraja nga xam ne loolu mooy àdduna xam-xam ak daraja ak pouvoir da koo jébbal sëñ Bàmba te bu Seex Seex Ibra la tax ak sukkam yéeme dafa mus a doon kuy sukk ak sukk mus koo doon xam nga loolu dafa war a leer Seex Ibra mus a doon ak sukk dafa mas a doon ñu koy sukkal di ko raamal bu dee ci wéy juróomu jigéen soxna Seynabou Njaay mboolem ku raw daanaka njare nga jànge ñu ay doomi soxna bu dee ci wàllu wéy juróom xam ngeen ko Kajoor ak Bawol ak Siin ak Saalum yëpp Cheikh Ibrahima Fall ko yilif waaye mu jël loolu lépp damm ay wóomam ne sëñ Bàmba maa ngi loolu mooy jàmb ji kat coow lu ngeen mës a dégg àdduna bi ci àdduna bi coow lu ngeen fi dégg maa lay moom a ko waral maa lay moom rek waaye Cheikh Ibra ne sëñ Bàmba yaa may moom kon nag sëñ Abdou Fall Moodu Mbend liggéey bii nga xam ne moom la ko Cheikh Mountakha dénk ñun day nun njabootu Cheikh Ibra suñ bakkan du ko fekk waaye ña ko ña ko bëgg ña ko bëgg ko bëgg gàllankoor seen bakkan lañ ciy dugal seeni bakkan lañ ciy dugal waaye nun suñ bakkan yi dañ koy liggéeyal sëñ Bàmba waaw dañ koy liggéeyal sëñ Bàmba ndax ba ba sëñ Bàmba laajee ay ay soldaar Cheikh Ibra dane maam Cheikh Ibra man Ibra waroon na maa toll ci tey ci ci mbubb yi keroog sëñ Ablaye Fall moo daw taxaw ca Basiir ba ñu indi Basiir ba ñu jële ñu jële Basiir ci kër ci kër Louis ca ca naar ba Basiir ba ba tey jii ma nga ca kër sëñ Modou Ablaye boo ñuy peese sëñ Fall sëñ Fall fekk sëñ Fallu jiitu na ba bakkanam des fa Cheikh Ibra Fall ne loolu laa bëggoon sama doom des ci liggéey liggéey bi ndokk bi sama doom desee ci liggéeyal sëñ Bàmba ndax man Ibra Fall dama bëggoon des ci liggéeyal sëñ Bàmba waaye sama doom desee sant na yàlla kon nag bu Cheikh Amadou Muntaxa jëlee liggéey bii teg ko ci loxo Cheikh Ibra nga xam ne ba fi gaynde yi nekk ci àll ba ci Touba Cheikh Ibra woon kon tey jii bu fi nit ñi nekkee Cheikh Ibra li li nit ñi li sëñ Muntaxa bëgg nañ ci jaar suñ bëggee jàmm sëñ liggéey la santaane ak jaamu yàlla ak ak jubal lim dénk maam Cheikh Fall nag du booy sëñ euh, sëñ Fallu maa ngi maa ngi jéggulu lii dafa nekk sama xol te mënu ko ñàkk bañ a wax ndax waroo fee nekk sax nu yëkkati kàddu di sant nag euh, euh, ñi ma àndal mboolem njabootu maam Cheikh Fall gi ma fekk sëñ Babacar Mbaw ñi ñëpp di say njaboot mu yor liggéey bu mag ca Mbàkke Kajoor fa fa yoonu mbëri sosoo Cheikh Ibrahima Dieng Fall mii ak mbooloo mi jóge ba Touba mboole seen ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant soxna Soxna Xuma di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi te xam ne nag réew mi réewum sëñ tuubaa la ndax sëñ Touba amul benn bis bu ñu ko defal boo xam ne bisub làmbatu la màggal Touba gi ñu jóge bëkki démb muy 18 safar mooy tàmbali bi julli géej gi histoire bu wér la du ay lépp lu am la. sëñ bi lu ñu koy defal rek fu mu jaar ba jàll la ñuy toppaat di ko di ko di ko di ko di ko feeñalaat kon nañu xam ne nañu jàpp sëñ Tuubaa doyloo sëñ Tuubaa koo xam ne lim la defal su ko su ko ay bal doon maye doo ko am li li lii war ci yow te nga di as gor mooy nga futtiku topp ko liggéeyal ko ba ba keroog nga koy fekk te xam nañ ne lim ñu waxoon moom sëñ Tuubaa téeméer at ci tey nam ñu ko waxee lañ ko gisee xam nañ ne li des. ëllëg noonu noonu noonu lañ koy gisee wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah fa laa ilaha illallah jasaaka maam Seex Ibrahima Faal laa ilaaha illallah baabul muridiina faal yaa nu wan yoon wi alhamdulillaahi rabbil aalamiin laa ilaaha illallah muhammadu rasuulillaahi wa sahbi salaatullaahi tabaaraka wa taala wasalaamu laay jaraw lakk maam Seex Ibrahima Faal yaanu xéewal sukk ak sujjoot aslamtu bi rabbil aalamiina laa ilaaha illallah huwal xayyul qayyuum jaaraama maam Seex Ibrahima Faal yow yaa tax ñuy raamal maam Xaadim Rasuul wasalaatu wasalaam jaaraama maam Lamp Faal maam sunu sëriñ Serigne Saliou Fall ibnu Cheikh Modou Moussa Fall may nu xéewal ya ma ndee Fall rabbi fir wal xam wa anta xayru raahimiina amin ya rabbal alamin Serigne Saliou Fall fi yàgg jaajëf jaajëf jaajëf jëf jaajëf jëf bismillahi rahmaani rahiim sëñ bi jaajëf déglu naa la bu baax intervention bi nga wax man mii sa baay ci toog fii mënu ma koo wax ndax dangaa xam kër gi xam yoon man sa waajur li tax mu neex ma fu nu ma sa tas rek dafa ma naan sa néeg yaay laa daan fanaan ci ci room bi sëñ Modou Ablaye fu mu tase wax nan ma ko soxna xuma jow ak kuréelu géej géej ñépp ñu si bokk rek jaajeen jëf man nag amuma discours bu muy wax damaa bëgg a bokk ci li alxuraan wax nee nañ sunu su am ndaje amee ñiy déglu ca di fa jële dara mu ne ñooñu ñoo am xam-xam man damaa bëgg a bokk ci ñooñu toog déglu déglu naa leen yéen yépp tubaar fukaan la sëriñ Yuusufa ki nu mu wax léegi sëñ Maamu a fait l'historique de julli géej sëñ Mor Maay Mbaay sëñ Maam Mor Mbaay xam naa ko bu baax def na historique julli gi wax na ba wax ci bureau ndar bi sëñ Yuusufa yow tu es le réceptacle d'intellectuel mouride li may wax nag du ndigal gu ma wax c'est tout simplement une idée ndax man mënumaa joxe ndigal mais Youssoupha par ta science ta connaissance ta compétence sur les réseaux yow mën nga invité année prochaine ci ndigalu sëñ bi tous les petits-fils sëñ Maamoor wax na sax ki doon dawal bato bi les archives sont là dégg suñu toogee di jëf ju liggéey ji ñi seeni maam yóbboon géej gi ak ñi ko jugé ñëpp war a mën taxaw fekke ko tout ça c'est possible et ça va dans la dynamique mouride at sëñ euh, Youssoupha idée bu ma bëggoon daal ñu creuser la creuser ko ñun xam nañ li xaw ndax tubaab du tëdd ci bindu man tubaab yi rek laa xam j'ai été chez eux en tëdd guddi te bindul donc tout ce qui était dans le concert conduisant Serigne Touba au Gabon mais on le rend dans les archives ah c'est c'est bi dañ ko war a reconstituer ci dynamique bi la dox man nag tey j'ai parlé aux intellectuels du pays dans le journal dans les douze jours qui passent qui dans le journal de 24 heures et Dakar Time pour leur dire ce que représente la prière de Serigne Touba sur la mer parce que dafa jot nag ñu wax ak gaa yi que ça soit clair sëñ bi fi nekk les faits et les événements de Serigne Touba dépassent l'entendement il faut que en parle qu'on le vulgarise dugg naa tey ci LinkedIn wax ak borom journal yi le digital ne leen tey benn journal warte wax dara lu julli géej te loolu mooy yoon yéen a yéen a ngi ci mais faut pas laisser les autres en rade il faut les aider su loolu paasee man de dama am fayda su ma ñëwee ci mbooloo lii sama soxla dinaa fexe ñu dégg ko dinaa wax aussi ci ordre du jour bi ordre du jour bi moom sama doom ji conclure na ko mais man dinaa wax li sama soxla sukkal man Serigne Saliou Fall damaa bëgg a bokk ci ñuy laaj dëkk bi 2024 laaj laaj bu ma ko nang ndaxte sëtub Cheikh Ibra rek laa du lool rek laajuma ko tam parce que sëtub yëlli manel Fall laa du loolu dama koo laaj parce que li xew ci dëkk bi xam naa ko li ñoo ñu jàng jàng naa ko je suis sorti des plus grandes universités du monde je suis docteur en économie en finance li may laaj yabuma leen ba ngeen taxaw fii mën naa leen jox leen ma dëkk bi parce que maay diw ak diw jox leen ma dëkk bi parce que man am naa xam-xam bu ko lijjanti ci jox leen ma dëkk bi mooy jox ko sëñ bi jëf